di leen jaajëfalaat bu baax a baax saa su ne yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy topp à travers toutes nos différentes plateformes saa su ne ni koy defee rek di ci ànd ak sunu oustaz macha allah sunu papa di sunu xarit oustaz Iran Ndao ci différentes questions yi nga xam ni euh, lang na diine wala lang na actualité moo xam macha allah duñ ci sori dañ koy bàyyi mu nuyoo oustaz ñu ngi lay ziar. Euh, ñu ngi leen di delloo ziar di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp mhm. liñ bëgg yal na leen ko yàlla de daraja yonent bi sallallahu alayhi wa waaw xam nga Pape Moustapha sama xarit la sama xarit la waaye tey laa yëg na gaañu na waaye euh, li nga wax jarul ngay wax bu ma sañoon a wax li nga wax sañ ko koo wax bu rëy ci lislaam moom maam mm-hmm. ndax jihaad na lu ne daj na lu ne dégg na lu ne def nañ ko lu ne am na ci lu ngeen fekkee am na ci lu ngeen xam am na ci lu ngeen fekkee wul nag waaye lépp mu amut ko rek ba yàlla dimbali ko ba mujjug dundam macha allah waaye Pape Moustapha Guèye bu daan nettali Karbala rek nga daan Karbala la daan téye mhm. di ko téye ba nga defee na yow yaa nga Karbala mhm. fekk ne ko mhm. xam-xamam moo amul fu mu yam yem wa tabaarakallaahu góor gu baax la ku baax a baax la dana fekk na ki ko gën ndax moo ko jox mbaax muy yàlla waaw yal na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla yërëm loolu rek lañ koy ñaan ndax mboolem faatu lañ lay ñaanal ah, eh, yal na yàlla jégal ko yal yàlla yërëm ko loolu la ñuy ñaanal waaye moom itam yal na ko yàlla jéggal te yërëm ko ndax eh, am na yu ma sañu nettali nag wax dëgg yàlla waaye sañ naa nettali daal ne moom daal histoire histoire lim ci man ci yonent bi gisuma ko man mas naa dégg ñu laaj ko ne ko eh, ko raw ci ci ci Sénégal ku ci raw mu ne Serigne Cheikh ak kan kenn ka daal xawma ko waaye sëñ Cheikh wóor na ka ci des ñeseen euh, la mhm. waaye loolu ku baax a koy def dëgg la mas nañ ñëw tiwaawoon maa ngi koy nettali rek bi mu ñëwee tiwaawoon ànd ak Ousmane Tanor Dieng ñu ziar si fekk ma ci rawdu bi man ak ndóoy mhm. fi ñu taxaw ma man nettali la benn xisal boo boo xam ne Baye Ibrahima Niass a ko waxoon nee na maam Ibrahima Niass dañoo ñëw ci raw du sëñ Babacar boobu mu ngi ñëw di jàll si mhm. nee na fi ñu toog mu ne déglu leen waay waay alxuraan ju neex ji ñuy jàng ci biir raw du sëñ Babacar di suuratu ah, mu ne déglu leen alxuraan ju neex ji ci raw du sëñ Babacar si mhm. muy suuratu yaasin man Pape Moustapha gémmi gémmiñam sama nopp ku baaxul ku am itti la ku jàmbaar la ku ku lislaam jaral lu ne la mhm. nekk na fi commissaire eh, aj màkk gi nekk na lu ne mhm. lu ne def nañ ko mhm. eh, li mu limu limu li li mu am ci diini loolu doy ñaan kay yàlla taxawul ko njabootam wóotu ko ci njabootam comme ni mu ko waxee ci alxuraan man kaana lillaahi kaana llaahu lahu waaw ku nekk ci li yàlla bëgg yàlla nekk ci li nga bëgg rek yàlla moom dafa am la boo nekkee ci li nga bëgg rek mu nekk ci li nga bëgg ak lu mu mën a doon nag lu mu mën a doon man kaan laay kaan laaw la nekkee ci lu bon defe ne mooy alal yàlla fay la lu bon rek soo nekkee ci lu baax yàlla fay la lu baax waaye pam Moustapha gi moom kenn la ci kennu diine yi kenn la ci jàmbaari lislaam yi ci bu dee waxtaan sax nga defee ne baa Ibrahima ñax du sëriñ tey laa ko war nga xam bu dee waxtaan nga defe ne dul sëriñam parce que moom ni muy waxee euh, loolu la yonent bi bëgg loolu la yàlla bëgg loolu la nit ñu baax ñi bëgg waaw kon nag yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal te am nañ ci yaakaar nag am nañ yaakaar bu baax yàlla dana ko jéggal am nañ yaakaar bu baax ne yàlla dana ko yërëm ndax ci yoon wi yàlla bëgg la nekk waaw ku nekk nag ci li yàlla bëgg yàlla nekk ci li nga bëgg rek mu jeex nitu diine yi dee gi gën a bëri du dara dañoo matal rek ku matal dem ku matal rek dem loolu moom amul benn sikk ku matalul doo dem ku sa mat nga yooru ñëpp ci yem nitu diine nit ñi du diine yem moom xam na xam naa dafa xalaat rek ci nitu diine yi waaye ñëpp a yem ak ku matal dem ku matalul doo dem moom kay li ñu war a ñaan mooy nañ dem ci ni Pape Moustapha Guèye demee dem dem bu baax mm-hmm. looloo mata ñaan waaye kay moom dem moom mm-hmm. ñëppay dem ñëppay dem waaw ku mata rek dem ah du du yéen a ngi nii taxaw mm-hmm. ci ku ci xam ndax déwén dana ko fekk ah ci tey bu kenn deewoon nga dégg yaan wuy parce que moom ni mu dee noonu loolu loolu moom am ci ne nangam ak Iran démb boo demee Iran ko def naa yu tappale rek tappale rek ah, waaye ku dee rek da matal ku matal da ngay dem ku mata rek da ngay dem nañ ñaan yàlla rek di nekk ci lu baax nekk ci lu yàlla bëgg te dem ci loolu loolu moo gën mu mel na réew mi am na benn phénomène bu xew mooy tàgge nit te muy dund waaw xam nga loolu moom <laughs> loolu eh, ma ko wax mm-hmm. eh, da nga da nga da nga mm-hmm. ana Iran mm-hmm. Saliou ne mu ngi nii xaar ma jox la ko nga jox ma ko nga ne ma ah ko kan la Iran ma ne man ah, kon jaaxle naa ñun de man fu ne ñu ma fay woowee di wax ne Iran dafa génn àdduna ah man de maa ngi nii loolu du dara du dara loolu nit ñi bëgg bës wala nga bëgg sa site ñu di ko seetaan loolu rek waaw dara nekku ci dara nekku ci ah diw dee na deewul fen bi kay moo gën a garaaw <laughs> xam nga loolu moom moo gën a garaaw eh, ñu jàppal la ko nag yàlla nee na inna laa yaktubu kaziba wal wal kusayba mm-hmm. wax yonent bee ko wax mm-hmm. yonent bi lu mu wax yàlla ko wax mm-hmm. nee na fen wu ndaw ak fen wu mag yam yëpp la yàlla yàllay bind kaf di fen ak wax dëgg di fen yëpp yàlla da koy bind inna laa yaktubul kaziba wal kusayba fen moom bind rek bind rek bind rek kon nag wax loo xam ne leer na la moo gën a baax waaye nag di dugg ci kafantu diw dee na nangam nangam loolu dara ñu ko def nag nga li ko waral état dafa fiir te jigéen bu fekkee ne baayam dafa ko fiiri di nga di ko nopp sooy boo moytu ko soo mënta bàyyi ndaw si hmm. eh, nañu yem rek ci li ñu war a yem hmm. waaw bu ñu yemee ci li ñu war a yem ñun ñoom ñu yem ci li ñu war a yem yàlla mooy arbitre yàlla rek am solo ñun nañu ne rek ci li yàlla bëgg hmm. baleen ñoom ci liñ bëgg waaye nag bu fekkee da leen di ŋàññi wala nga leen di dal wala nga am na leneen lu gën a nekk farata lu gën a nekk farata loo xam ne nii ñun moom lañ war a sonn mooy xale yi nga xam ne ñu ngi topp seen bakken topp seen euh, xalaat def lu leen neex di saaga ci sit yi wax yu bon yooyu la ñu war a toppatoo nemmeeku leen yaraat leen ba ba ba teg leen ci yoon parce que borom xam-xam loolu lay liggéeyam waaw mooy jubbanti ku jub loolu lay liggéeyam mm-hmm. waaye du fekk ay état fële nga dal ci kaw état waxuma na ngir kenn bul jël jël sama wax bii jël photo nit di ko teg ak sama photo déedéet non waxuma kenn dama wax rek ne loolu du yoon parce que état su defee lu mu wartu def moo xam boo ko deful moo xam nitu diine nag moom sañ na bu fekkee yaakaaru état sañ na wax loolu waaye bu yaakaari état nag sañu ko wax fooy mm-hmm. ah, ah, jëlee dara moom kay boo ko waxee dootuñ la jox dara moom kay da nga naan woy est-ce neex na de waaw waaw baax na moom kay noonu la rek ñu di la jox nga du noonu ñu sàkkal a pexe yow seet bunt buñ la dugal waaye nag dafay fekk yàlla matal sa dund doon nañ ko defal bu dafay doog a sotti bi sa dund jeexee day doog a sotti mais bu sa dund jeexul dara lañ la mënul dara dara dara dara waaw dara mënaluñ la ko mm-hmm. waaye nag bu xasee jeex jeex na mm-hmm. waaw bu jeexee nag moom bu la melantaan mattu sanga dee mm-hmm. sànq lañ bu la mattu sanga dee dara mënoo fexe ba ba des waaye nag bu dund bi jeexul jeexee jeex na bu jeexul jeexul waaw nañ gëm loolu parce que yenn wax yi ñuy wax ci réew mi yëpp dañuy tàddeel waaw na nangam a ko rey nangam nangam boo demee état ko rey boo demee dañ ko pikir mu dee boo demee dañ koy jox nangam mu dee loolu lépp ñu di ko indi mm. dana la jural bàkkaar parce que yaa ngi wax lu la leerul mm. yow mi wax yaa ngi wax lu la leerul mm. donc la dana la jural bàkkaar waaw ndax inna la nu mu tuddati yàlla sunu borom dafa wax ne ñi nga xam ne dañuy siiwal lu ñaaw ci nit ñi nee na ba buñu bu ñuy dund danaa leen alak buñu dee ma alak inna alladina yuhibbuna an tashal fahishatu fi alladina amanu lahum azabun alimun fi dunya mhm. ko mhm. kon nag euh, wax lu la leer daal baax na moo gën wax lu la leerul waaye nit dee rek nga daloon na ci état bi moo tax ñu def ko nii def ko na nit mënu rey nit alaaji Malick nee na alaaji Malick nee na Seydi Haaji Malick nee na lu la nit tëkkoo boo ko yoree mbéj mbéjal ku la tëkk ku la tëkk mhm. ndax bu ko man laa yaqi nafsahu durra fa kayfa yusib Mhm. nee na mu ngi feebar boo xam ne mënu ca dara xanaa bala laa tëkku wax ci feebar bi ko dal mhm. Iran mi tëkkuwaat mhm. wax ci feebaram bi moo gën na wax ci feebaram bi xool ko bu dee na waaye gannaaw mënuma dara ci sama bopp mënuma fegal sama bopp dara ku ma ku ma lay napp rek napp rek moo fi ne xullee ko waaw waaye nit daal nañu bàyyi jëme dee ci loxo nit nit moo mu dee yàlla moom dee yàlla bind nit yàlla ko wutal fu mu yem nekk ci ñoom parce que nit ki li mu gëm mënoo ko ci wéddi ko wéddi da koy bàyyi ci li mu gëm man daal li ma wax mooy képp xam ne faatu na atam mat na képp koo xam ne faatuwul matul waaye am fi ñaar nit ne ci oto kiy dawal oto bi mhm. man sama mag bu sama mag bu góor Kéba mhm. euh, bi muy bi dee defa ànd ak rakkam Moodu mhm. ñu dem ba la ci tournal bi jëm Kaffrine fa la oto bi këppoo ñetti yoon hmm. këpp na jogaat këppwaat jogaat këppwaat jogaat ñoom ñett Kéba rek faatu Moodu dara dara dara dara dala sax yàlla yàlla moo mel noonu keewaa moom nam mel mënu la ko wax te ñoom ñaar nekkoon ci kanam oto bi mhm. léegi bu fekkoon bokkuñu ndey ak kon lu ñuy wax Moodu su moo doon mhm. ak moom kon kon lu ñuy wax Moodu voilà far ñoo bokk ndey ak bàyyi kii muy seefam pour wax la rek ne nit nit bu matalee rek dem mhm. ku matal dem waaye matal dem ñu naan woy sëriñ si nangam nangam diw nangam nangam loolu baaxul nañu bàyyi deri jàmbur yi ñuy yàq nañu bàyyi deri jàmbur yi ñuy yàq nañu bàyyi deri jàmbur yi ñuy yàq nañu yem ci suñu bopp rek ku dem daal nañu ne dem na nañ ko ñaanal jeex na man de loolu lu nit gëm na at na naa ceeg moom bàyyi naa ko mu gëm ko man li ma gëm moom tawax yi rek tawax